si euh, affaire 94 milliards bu Ousmane Sonko ñu jàll si statut euh, spécial bu Dakar nga xam ne kii di njiitum HCT euh, di Aminata Mbengue Ndiaye gannaaw ba loon seen première session ordinaire bu année 2020 moom dafa yëkkati rek ay kàddoom di xam le ne kii di Ndakaaru fii di Ndakaaru Ndiaye na fas yéene nañ ko amal statut spécial mu nekk rek mu mel ni comme njiitum réew bu par décret mun na nommer kii di maire de Dakar. ñu bëri gis ne soubassement politique la. waaw loolu moom bu amee euh, te yaakaar naa ñu bëri dé maase nañ euh, euh, wax ne lu mel noonu buñ bàyyee mu jàll loolu dellu ginnaaw bu rëy lay doon ci suñu démocratie maa ngi dégg ci ñi ci jot a àddu ñuy wax naan daf ñuy delloo ci jamonoy colonisation ma leen di xamal ne avant même colonisation di am ci Sénégal ci suñu histoire notament ci Jolof ak li ko jiitu muy royaume di Tekruur dañu yàgg di fal nit ñi. parce que en réalité élection c'est un moyen de décision et de participation du citoyen loolu dafa bokk ci démocratie bu demee ba askan bi mënatul la tànn ñi nga xam ne ñoo koy représenté nekkatuñ ci démocratie mais ci dictature la ñu nekk parce que tamit lu mel noonu bu ko insérer au Sénégal waxuma la rek que suñu démocratie la ñuy naxasal mais la nature même de notre état sera remis en remise en cause parce que Sénégal dafa opté nekk un état unitaire décentralisé yaakaar naa euh, euh, euh, li nga xam ne moo nekk dans le sens de mooy fexe ba euh, euh, les citoyens di élire seen ay élus boo xoolee Sénégal ci histoire am démocratique marche bi mu yàgg jël mooy une marche vers plus de démocratie plus d'implication plus de participation le président Mamadou Dia avant la crise de 62 dégg ngeen yéen ñëpp l'histoire de cette circulaire de 32 déjà à l'époque on réfléchissait sur comment organiser les populations à la base à travers les centres d'expansion rurale à travers les centres d'animation rurale pour que askan bi mën a bokk ci ni nga xam ne noonu la doxalee développement réew mi am na ñu ne sax la crise de 62 c'est une opposition de deux logiques le président Senghor était pour une administration de commandement alors que le président Mamadou Dia était pour une administration de développement moo taxoon mu créé xeetu kuréel yooyu pour Euh, acte bu mu ci manti doon étape bu mu ci mënti toll lii doon mandargaam mooy degré de pouvoir bi nga xam ne moom la ñu jo jox askan bi may xamal sénégalais yi nag lu mel nii euh, dafa di loo xam ne xeex la boo xam ne dafa dépasser parti politique yi c'est un combat pour la démocratie sénégalaise c'est comme la question du mandat le moment venu je pense que sénégalais ñoo war a taxaw sàmm seen démocratie xeex pour que lu mel nii mu bañ a am ci Sénégal d' accord kon yéen da ngeen a jàpp ne euh, kàddu yi nga xam ne euh, kii di Aminata Mbengue Ndiaye yëkkati na ko euh, nekkul ay kàddu yu fortuit dafa rek mel ni ku jottulil kàddu kii di njiitum réew mu Macky Sall gannaaw bu ñu bëri ñu féetoo si kujje bi mun naa si liim kii di Barthélémy Diaz ak kii di Bamba dañoo jàpp ni kii di président Macky Sall dafa xam ne mënatul gagné mairie bu Dakar via les urnes. waaw maintenant euh, bu ndax maki sàll moo ku ko yóbbante pour mu mu yóbbu ko ca commission euh, sur la décentralisation bu dialogue national wala déet ñun loolu wóoruñu li leerte leerte yaakaar naa tey sénégalais yépp kenn dootu ci werante mooy le président Macky Sall def na lu ne pour jot mairie Dakar gis nañu fa mu jaar ak Khalifa Sall gis nañu aussi élection législative 2017 yi naka la ñu jëfandikoo ordre de mission yi. pour duler élection bu Dakar pour mën a pour mën a pour mën a gagner à Dakar donc euh, euh, bu ñu wëlbatikoo nag euh, ñu gis lu mel noonu ñun li ñu mën a jàpp rek mooy dafay dolleeku ci stratégie ci ci pexe yi nga xam ne moo ngi koy fexe ba mu doogee ci nguur gi ba léegi pour récupérer la la mairie de Dakar. mais tamit mun ngeen euh, rafet euh, njort euh, jàpp ne kii di président de la république wala sax kii di Aminata Mbengue Ndiaye dafa sa këreel yu am si wàllum mbi mairie de Dakar ak budget yu ngan yi nga xam ne ñu ngi koy dépensé si wàllum élection nga xam ne bi ñu nommé kii war a nekk maire de Dakar par décret dafay nekk mbir boo xam ne rek dina gën a mun a alléger budget de fonctionnement si wàllum élection. élection ak tamit nekk mbir boo xam ne rek dina alléger sax euh, Dakar par rapport aux autres villes. waaw li ma mën a wax mooy démocratie mag yi. bokk na ci seen i mandarga mooy seen ay villes maire yi dañ koy élire muy Montréal di Paris di New York ak beneen ville boo mënti jël euh, argument boobu man jàpp naa ne ça ça ne tient la route parce que élection maire ville de Dakar ñoo ngi koy def le même jour que l' élection des maires et des présidents de conseil départemental ci proportionnel bi nga xam ne moom moo ëppale ay nombre d'élus sur les dix-neuf communes de la ville de Dakar donc da gis ne que loolu c'est pas un argument qui tient la beneen bi mooy une démocratie aussi elle su nourrit de conflits mais les li nga xam ne atte atte bi ëpp solo bi gën a efficace ci démocratie c'est l'élection ce n'est pas les décrets parce que les décrets kooku di ko jël aussi malheureusement au Sénégal il est souvent le président d'une majorité donc mën na manipule décret boobu noonu au profit de son groupe politique donc boo gisee ñu instaurer élection ci démocratie non seulement c'est une façon de donner la la voix au peuple mais également c'est une forme d'arbitrage des conflits d'orientation des conflits de point de vue et de projets qui sont dans la société normalement war nañu fexe euh, euh, le moment des élections pour que pour ce qui concerne la gestion de nos villes que les projets les visions puisse compétir et que à la base ñu jox la possibilité aux Sénégalais ñu choisir ban projet mooy nekk bi nga xam ne mooy gouverner la ville pour man une bonne démocratie c'est comme ça qu'elle doit marcher mais administration par les décrets loolu jëm naa ne ci dictature la ñu ëpp lu ñu koy faral di gis te yaakaar naa Sénégal fi mu toll tey war na moytu xeetu xeetu doxalin yu mel noonu. un mot sur la détention de Guy Marius Sagna nga xam ne ñëpp rek dañ koo féetalee seen parti PASTEF. waaw xanaa di ko di ko naqarlu mu doon loo xam ne lu ma lu ñu lu ñuy mettitlu la parce que Guy Marius la tax ñu jàpp ko du yëfu boppam il était laba pour s'exprimer parce que tamit yaa a plusieurs manières de s'exprimer li mu def ce n'est rien d'autre qu'une forme d'expression démocratique d'un ras-le-bol d'une forme de représentation euh, dañ ko jaay doole et puis tamit la ca nit ñi di njort mhm. yaakaar naa aussi moo ci am c'est parce que dafa nekk nit koo xam ne euh, suñu diggante ak France lu ko soxal te bokk na ci sénégalais yi nga xam ne jot nañu xoolaat taxawaayu France ci suñu réew te boo xoolee aussi sañ-sañ bi ambassadeur France am. mais ambassadeur Macron la mu wax barki démb euh, frappe tekkiwul dara xam nga loolu d' abord ñàkk wekk sénégalais yi mënta weesu loolu parce que waa frappe dégage euh, mën nañu ñàkk ànd ak ñoom ci seen gis-gis ci wàllu politique ak yu demee noonu donte ñun ñu jege lañ ñun waa Pastef ci wàllu gis-gis mais même boo àndut ak ñoom yaakaar naa ay sénégalais lañ te yaakaar naa man li ma gëm mooy sénégalais. buñ ko tegee teg keneen même bu fekkee sénégalais bi dafa am neneen lu mu bindoo wala ànduma moom balaa mooy tànn sénégalais bi laay tànn parce que xam naa bépp euh, euh, considération bu ñu def ci moom ci euh, day mel ne ci man lañ ko def donc mm-hmm. vraiment ñoo ngi naqar loolu ñuy ñaan ñuy ñuy xam ñuy ñuy ñuy ñuy wax le président Macky Sall rek mu dëggal ne loolu ñuy wax ci moom du dëgg maanaam que nit la koo xam ne fu France joxoñ rek fa lay fa lay dagg mu libéré doomu jaamur ji mu dem fekki soxnaam fekki doomam Euh, ñu fexe réew mi ñu tegaat ko ci yoon fexe ba sénégalais se sentent à l'aise chez eux et qu'ils se sentent dans un pays boo xam ne réew la boo xam ne dafa sàmmantoog euh, la les libertés démocratiques ak ak ak ak un pays de justice sociale. un mot sur le coronavirus treize euh, nit yu sénégalais yu coincé foofu noonu à Wuhan en Chine Macky Sall xamle ne moom il n'a pas moyen moyens rapatrier leen. waaw li may wax rek mooy la diplomatie aussi est un moyen. l'argent est un moyen. mais est-ce que aussi c'est la la logistique comme l'a dit euh, de la Chine au Sénégal ñu bàyyi leen foofu moo gën a sûr tamit parce que gis neen pays yu ko def comme l'Italie fu mu toll nii am neen benn cas aussi. waaw mais dans tous les cas il appartient aux Sénégalais de d'apprécier eux-mêmes leur situation. et de mm-hmm. dire quoi faire c'est pas un ambassade encore une fois qu'il soit l'ambassade des de la Russie ou bien l'ambassade du Brésil ou des États-Unis mooy ñëw di ñu wax qu'est-ce qu'il faut faire li am ba am mooy. y a le centre euh, le cours y aussi le professeur Souleymane Boub et ya yaakaar naa aussi am na yeneen spécialistes yoo xam ne addu nañ ci yëfi yi ne à l' état actuel de notre logistique bi ñu am on peut faire face à ces cas may fàttali rek ne euh, à l' endroit du président Macky Sall que état aussi mit moo ko yor te war nañu moytu ci suñuy discours. Euh, di mythe boobu ñu koy fragiliser parce que état war na moytu taxaw ne lii ni nga xam ne moom laa jàmmat lool mënuma ci dara lu ñu war a moytu la ci ci ci ci ci communication politique. d'accord euh, monsieur Sow euh, nous en arrivons au terme de cette émission cette émission bi euh, jeex na ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. c'est un plaisir partagé je te remercie encore une fois de plus pour l'invitation. merci beaucoup euh, chers internautes de Sénégal TV de Sénégal 7 doon ñu suivre sànq ba tey via notre page Facebook Sénégal 7 ak YouTube bi Sénégal 7 TV nous en sommes à la fin de cette émission merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission un grand remerciement aussi à toute l'équipe technique ak rédactionnelle de Sénégal 7 qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission merci on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission La Grande de interview de Sénégal 7. Merci.